waaw man la Serigne Saliou Diouf nekk enseignant jóge commune u Ngogom Kodeku Ngogom nekk euh, école Bambey Séréer 1

ak coronavirus bi nga xam ne ñëpp a ngi koy naqarlu regroupement état moo ko waxoon bu leen ko defati xëy a xëy euh, créer benn regroupement boo xam ne moo ëpp fuuf lañ doon tere fii ñëpp koo gis accolade la moromam ndax dañoo gëj gi gisante donc waroon nañoo jël seen i motuwaay ñu xam ne lii moom c'était c'était pas le bon pour ñu def lii waroon nañoo xool yeneen situation ak yeneen conditions yu ñu ko mën a defee lu dul di ñu woo fii du ñu dajale lii daal dem ma naqaru laa ko ba ci kanamu yàlla. seen dëkk yegg nañ koo xeex xanaa kay di waxaat di waxaat na syndicat yi jóg seen grève yi nañ ci boole eh, conditions yi nga xam ne noonu la ñuy tegee enseignants yi ci fépp nag boo duggoon ci àll bi tey poussière bi bëri beeg ci àll bi yëpp gaa yi wax nañ ko gaa yaa ngi ci mbaar yi léegi nag naka ngay mën a xëyee nekk jóge ca mbaar ya war a ñëw ci ville bi nga xam ne dañ na fee woo nga ñëw fekk falat mbaar ya tane lii jaaduwut loolu daal naqaru lañ ko bu baax na président xoolaat nu muy doxaleek jàngalekat yi ñun ñoo yor Sénégal ñun ñoo yor future génération bi nga war a yor Sénégal ñun ñoo ko yor kon nañ ñu considéré loolu daal nag na ko président dégg lii rafetul xam nga lu ci bëgg de mais li ñu ci bëgg moom ñu ngi koy suuf ñu ngi ñu ngi loo xam ne mënuñu ko caa dabb loolu daal c'est un c'est message bu ñuy lancé par rapport ak président na ko dégg lii rafetul ay kilifa lañu waaw ba ñu ba léegi gis nga les les les dames là ñu ngi toog sur enseignant bëgg fi mu ngi lijjanti fan lay tok ak nan lañuy def kenn ndekkiwul kenn añul kenn deful dara amuñu fuñu tok amuñu fuñu fuñu fuñu taxaw les enseignants sont là sous le soleil rafetul waaw lolu c'est à dénoncer. non mais euh, d'abord dañ lay nuyu di la sant di nuyu jangale kat yi waaw là aussi il faut dire que ni état bi respecté wul lolu parce que pas plus que hier rek c'était le 8 mars alors euh, état bi bañ aussi rassemblement pour célébrer la journée internationale de la femme kon bu fekkoon dañu samanteeg loolu aussi vraiment il n'allait pas organiser ce rassemblement d'autre part aussi pour ma kii nii mooy de conditions neex nous condition yi ñu mais aussi vraiment euh, rafetlu wuñu ko quand même vraiment ça laisse à désirer dans la mesure où peut-être ni muy doxe ni vraiment danañ fi mën a toog fii ba zéro heure te du pareil.

Mm, peut-être que conditions est vraiment euh, les conditions ne sont pas réunies et d'autre part aussi euh, peut-être c'est un défi que je lance aux, syndicalistes parce que là, dafa war a beaucoup ci yenn revendication c'est le moment aussi ñu nous a jox cër enseignants mais dafa faut ni vraiment cër bi ñu warloo ak enseignants yi dafa des quoi vraiment il faut di boole ci ay conditions yu nga xam ne mooy audit structure yi dañ leen di fekk ci structure yan lañ fa war a kii mais bu ñuy auditer enseignants yi dañuy ñëw di leen dajale comme ay yu kenn xamul. waaw waaw waaw waaw xam nga nit aussi loolu noonu dama naan pratiquement quelque part ce sont les enseignants ndax nit aussi ni ngay ni ngay ni ngay ni ngay wuyoo rek lañ lay woowe quoi parce que enseignants yi nañ ñun ñëpp à commencer par nous-mêmes nañu gën a jëmal suñu bopp. nañu gagnons des demal suñu bopp te xam aussi kenn mënul nekk quand on parle d'un état non l'État c'est structuré euh, vraiment du sommet à la base aussi mënuñoo wax kenn sans ñu sans qu'on parle d'enseignant. enseignant fépp foo mën dem aussi euh, kooku noonu il a été formé par l'enseignant? Quand kon situation yi ñuy dund war nañ ko waroon nañ ko gën a jëmal mais très sincèrement bu faites nag yow li ngay dund aussi jëmaloo ku ñëw bon day jaar sa kaw rek jàll quoi et je vois que ni loolu aussi dafa nekk ci dans le monde éducatif quoi waaw man c'est Ababakar Ngom euh, je suis enseignant dans le département de Bambey ah, xam nga IEF Bambey la xam nga école de Ngothie quoi voilà merci